dal leen ak jàmm mbokk internet yi ndax Viviane moom dafa nekk koo xamante ne nii du gërëm ñamu daaw ba tax mu war a nar a mën a jël kii de di jaag dal di koy sacrifier ci mbir mi nga xamante ne ci lañ koy tudd nar ko ci yóbbu kaso ci ay bés yi ñu weesu ci la kooku lee di di jaag Diouf nekk manageru Viviane Ndour daal di am ay problème ñu jéem ko joxoñ ko baaraamu tuuma ci ay faux visa yoo xamante ne doon na ko def looloo waraloon ba yoon mujj ko teg loxo moom ak ñenn ci ay ñoñam yu ñu wax ne ñoo doon lëkkaloo ci boobu la liggéey ku ci ni ku ñuy Ndeye Kouli Kane nekk benn agent ci ambassade bu Italie ak itam kile di Mamadou mbay ñu gën ko xam ci turu Petit mbay ñoom ñooñu lee la ñu taqal ci mbir mi ba waral ci ay bés yi ñu weesu ñu feesoon dell ci réseaux sociaux yi ne xuus ñëpp di leen xool ak joxoñe baaraam tuuma waaye mu mel ni juge d'instruction bi moomu jamono jii nii mu ngi jéem a lijjanti mbir mi waaye mu mel ne boobu boobule liggéey narta yomb lool ndax bu ñu sukkandikoo ci suñu ay xibaar ambassade bu Italie bi moom wax na ne daanaka mësta jot faux billet ci lii nii ñu wax itam jant ci mbir mbir mile ànd ak loolu fasul yéene daal di nekk partie civile boobule taxawaay bu ambassade bu Italie am mu ngi ko am ci ginnaaw si nga xamante ne yëg na ne kenn ci ay agent di kile di Ndeye Coly maanaam ñu gën ko xam ci madame Coly Kane moom moomule ñu taqal ci mbir mi ginnaaw soosu ci la ambassade bu Italie daal di génnaat ba set wecc ci mbir moomu moomule looloo waral ñu samp ab laaj ndax dëgg-dëgg li ñu taqal kenn ci ñoom ci mbir mi moo tax ñu noppi ci wala dafa nekk dëgg-dëgg loo xamante ni ñoom moom la ñu gis la gën a doy waar nag ci mbir mi mooy ba fi mu toll nii partie civile la amagul la maanaam gisaguñu kenn ku mën a taxaw daal di dëggal tuuma yooyu noonu nga xamante ne moom la ñu def kile di di jaag ak ay ñoñam tey jilee mbir mi picc yaa ngi cay sapp waaye ca jamono jooju waa kër manageru Viviane bi di di jag Diouf am na lu ñu wax de waaw waaw ñoom nee nañu lii du dara lu dul ab ku monté maanaam sos yu ñu teg ak ay kàcc teg ko ci deru bi di jag juuf te ki ko def ci ñoom nee na daal dëgg-dëgg nekkul kenn ku dul Viviane moom ci boppam la ilaha illallah doy na waa di jaaj mu la ilaha illallah Viviane Chidid moom moo taqale kii lee di manager am loolu doy na waar ana lu waral loolu waa këram di wax ba tey itam ne Viviane dafa namoon taqalikoo ak kii lee di di jag juuf ana li koy firndeel ñu wax ba tey ne simila ak saala ci ay bés dong yu ñu tekk ci biir mile bi nga xamante ne joxoon nañ baaraamu tuuma di di jag la Viviane daal di profito daw ut beneen manager ci lu gaaw a looloo tax famille di daal di jàpp ne Viviane dafa monté bileku ngir rek daal di taqalikoo ak ki xam ne moom mooy Diack Diouf waaye ba tey waa kër di Diack Diouf am na luñ ca teg ñoom nee na ñu lii lee mbir de dañ seen xel daf cee dal ndax leen ci gën a neex mooy ne di Diack dina taqalikoo ak Viviane itam dina may ki la di di mu daal di gis dëgg-dëgg xar bu dëgg boo xamante ne nii moom la Viviane yor ndax ñoom ñooñu lee jàpp nañ ne Viviane dafa dëkkee woon di exploité ki nga xamante ne moom mooy di Diack Diouf maanaam daf ko doon jëfandikoo rek loolu yëpp ginnaaw si nga xamante xamante ni ñoom ñaar ñu lee dem nañu ba mbokk nar dox seen diggante ndax ki di di jàkk jot na jël kenn ci ay doomam yu jigéen daal di koy tuddee Viviane ànd ak loolu mu amoon ci moomu kóllëre jox fu mu nekk di fa défendre Viviane mile dundam waxam ak i jëfam lépp mi ngi ko tegoon ci xeexal ki lee di Viviane mel ni bu olof njaay ne ànd bu yàgg bii dëgg la mu mel ni bilee dëgg nag daanaka dafa féete boor ndax Viviane dafa war ki lee di di jàkk wala sax di jàkk moo war ki di Viviane ci jëf yuñ ko doon tuumaal jëf yuñ ko ko doon def Viviane lu ci mënti am daan ci ñëwaat ak ci yeneen i leeral jërë ngeen jëf